asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu nuyoo nuyoo ziyaar rafet rafetlu seen ànd ak Ablaye Naar mbokk yi ndigal wàcc na te ndigalu yees bàyyi ko ci Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kul murid yàlla fi yàgg lu tànd ak wér mu soxal ndigal yi nga xam ne jëloon na ko teg ko ci loxol Baye Fall yi mu di lu jëm ci war mooy dugg sere bi Touba mbokk yi ay coppite am na ci mu di mbir yoo xam ni dañu ko tey génnee naka nooy tam taxawaay bi gën a nosu ngir li nga xam ni moo daan xew ci dëkk bu sell bi Touba di coow yu daan dégg ci diggante Baye Fall yi ak taalibe yi moo mën a dakk mbokk yi Serigne Mountakha Mbacké Bachir bind na ab bataaxal jébbal ko xalifa général des Baye Fall Serigne Amdi Moudou Mbende Fall mbokk yi la nekk ci bataaxal boobule lañ leen bëgg a àggee kilifay Baye Fall yi def nañ benn communiqué njëkk la xam xamle moo di Serigne Abdoulahat Mbacké li nga xam ni moo njëkk a lu bari ci dëkk bu sell bi Touba mu di ñu sàmmanteeg war mooy dëkk bi na mu teree woon ak la mu ci teree woon kot legi la ñuy doxal ci dëkk bu seen boobu Touba Serigne Mountakha ñaar cote la ca dolli mu ne football ak politique waaye bari na yoo xam ne ñi ngi doon tere fan yi ci dëkk bi nga xam ne bokk na ci li nga xam ne moo jur coow lu ci demee casquette maanaam cap yi nga xam ni moom sol nekk na itam bracelet te ay plaque yu ñuy takk ay chaîne yi nga xam ne dañ ko daan dagg naka nooy itam wattu ñuy wat nit ñi yooyu yëpp nag dañ ñi dañu ko ciy jëlee léegi bokkul ci maanaam amul cap bu ñuy aaye amul chaîne naka nooy itam watu yi ay wuñ ko ak ay plaque li ñuy tere mu ngi nii ngir jàkkaarloo moo nekk ci affiche bi Serigne Mountakha Mbacké ñaar contre ci dool yi mu dee politique ak football mbokk yi nañu ko déggee nii te jëfee ko nii mbokk yi képp koo xam ni yàgg ngaa diglu suñuy kàddu ci lu jëm ci war may dëkk bu sell bi Touba yàgg nañ koo wax Serigne Mountakha Mbacké Bachir lii muy tere bëggut benn coow da ci am wala kenn da ci gaañu naka noonu itam kilifay Baay Faal yi nga xam ne itam ñoom lañ dégg liggéey bi suñu sañoon benn coow du ci am kenn du ci gaañu ndax taaliba yi ak Baay Faal yi ñoo bokk ba Touba ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ndax Baay Faal yi duñ ay gan bi Touba Touba la ñuy yeewoo ak taaliba yëpp kon daray coow waru ci am te itam ñoo bokk lenn lu ñu bëgg mu di war may dëkk bu sell bi Touba bokk kenn ku ñu bëgg di Serigne Touba ak Nasul waaye nag bari na ñoo xam ni ñoo nekkoon ci liggéey bi da ci doxee noo xam ni Serigne Mountakha bëgg ko wala kilifa kilifay Baay Faal yi bëgguñu ko ba coow di ci am loolu moo tax ñu daal ci yeneen jéego jéego yoon ci amal moo dee ay bureau yoo xam ni taxawal nañ ko léegi Baay Faal yi kenn ku nekk am na wàllu woo yor jéego yees yooyu nga xam ni amal nañ ko ci moo tax ku nekk am nañ la dénk lañu la dénk itam ca nga yam keneen amul benn sa sañ di wax jëm ca lee wala muy doxee neneen loo xam ni dénk ñu ko te amoo ci sañ-sañ mbokk yi kon nañu ko déggee noonu te jëfee ko noonu de may dégg nag képp koo xam ne yaa ngi yeewoo ci dëkk bu sel bi Tuubaa fexe ba sàmm sa bopp bu kenn taxaw sa kanam naa la na nga doxee nii doxee nii ci war may dëkk bu sel bi Tuubaa lépp loo xam ne war nga ko def ci biir Tuubaa xool ci sa diggante ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul nga bëgg de ko li mu bëgg ci dëkkam bu sell tubaab Touba nañu sàmmonteeg war may dëkk bu sell bi Touba yàlla ñëpp am jàmm jërëjëf